ànd ak xeex bi ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex muy xeexu terrain bi dina am yeneen xeetu xeex yoo xam ne dañ ko andi ndax am na koo xam ne mënul génn ci mbedd mi xeex waaye am yeneen xeetu xeex yi mu mën moo tax bañ doon andi xalaatu concert casserole li kon doon mooy jàpp ni am na ñoo xam ne mënuñu génn dem ci mbedd mi xeex mënuñu dem manifestation waaye taxaw sa balkon wala sa ëttu kër yor sa casserole dóor yomb na ci noonu lañu wax ni képp koo xam ne Macky Sall ni mu yoree réew mi neexu la dañu lancé yeneen xeetu xeex yoo xam ne mun na jëm ci grève général ñu fexe ba réew mi yépp ne tekk tekkaaral ci ñaari fan benn fan ñaari fan ñetti fan kii nga xam ne yow sa magasin nga yor te d'accordoo ci ñu yore seen réew mi am nga sañ-sañu tëj sa magasin ne ñaari fan yi duma ko ubbi dina dina xañ ñaari fan dépense waaye loolu mooy sa asaka ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ki nga xam ne sa oto nga yor di transporteur am nga sañ-sañ na ñaari fan yi dinaa taxawal sa oto duma ko dawal loolu dina paralyser réew mi yëpp àdduna yëpp gis ni senegal ànduñoo ak Macky Sall mun nañu dem nag ba def campagne désobéissance civile mooy bu dee nguur dem na ba légitimul bu dee nguur dem na ba méngootul ak askan wa askan wa gisatul boppam ci nguur googu askan wa am na sañ-sañu def lu ñuy wax désobéissance civile mooy lenn ci ay loi yoo xam ne ñu ngi koy teg te jaaduwut waa askan wi yëpp ànd ne d'accorduñu ak loi bi te duñ ko appliquer kon bëri na xeetu xeex yoo xam ne ci fan yi bu soobee yàlla mun nañ ko taxawal boole ko xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex nag sur le terrain